ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kulub promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu soit nañ ci digg géew bi Kaapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye Kaapay kenn du yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu soit nañu wurewa dem na kang waxu mag dem na ndañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf Serigne Fallou li Nicolas jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku suufle ba dal na Ama ak ñoom ñaar ñu ngi leew too ñu ngi leew too laa ilaha illallah ay waay xool leen stade bi Modou Lo Ama Baldé ñu ngi xeex ñu ngi xeex xeex bi métti ñoom ñaar ñu ngi ar arbitre lu bi ma la siyaaree hmm. ñu ci dernier réglage yi nga moo euh, concerné Modou amaa Ama Baldé ah. tey réunion secrète bi nga xam te am na fi ci camp bi nga xam te mooy ci waa Ama Baldé fi ñu war a toogee ak camp bi Modou Lo war a toogee ku ci nekk xam na ko moment bi fan ngeen toll ci réglage yu mujj yi fan kay li ci toll li des mooy wax ak suñu supporters yi ah, ñuy wax tamit ak supporters waa Parcelles ñu xam ne ñun ñoo leen di dalal ma ne bu nekkee waa Pikine ñu ngi may dégg képp ku si mun a jëndal waa parcelle ji wala boisson bu sedd nga jëndal ko mun nañu sax bokk fu ñu toog maa ngi siy ñaan képp ku ci sànni xeer ci biir stade bi man Pape Sarr yàlla nañu yàlla atte barke yàlla kon bëggaloo Ama jàmm bëggaloo tamit waa parcelle jàmm tamit tamit bu ñu gaañantee tamit ñun ñooy dem faj ji coow li li yëpp dañ doon wax rek pour jaay làmb ji jaay nañu làmb ji ba mu jar te gisum kenn musuma dëkk micro ma wax ci baat bu ñaaw baatu tontu rek laa doon wax mais musuma see dugg wala baatu yëkkati saaga wala tey am na ñoo xamante ne si biir làmb ji tey am na ñu ma doon woo ci seen numéro si seen numéro di saaga te dëkk bi dafa am yoon bi ma jëlee ci numéro bi tamit ñoom ñëpp dama bàyyi yoon def ceen liggéey mooy numéro bi ama duggaloon pour kañot bi am na ñu ci bëri bu soobee yàlla dinañu indil seen waa kër ay coona du dëgg am na keneen koo xamante ne tey tamit vidéo la defoon seman man tey bu ñoom ñaar lañu li ma lay wax nii prince prince mun na ma seede fekk na ma foofu mm-hmm. te ñooñu tey tey caabi féete na leen ginnaaw loolu la bokkul ci làmb man gisuñu benn waa Pikine bu yëkkati téléphone u wala téléphone kenn si jekk di saaga comme man la ama yëkkati sama numéro di ci dugal nga yëkkati ay baatu saaga dañu fàttali tey sa numéro téléphone dañ koy identifier sa carte d'identité kon tey jàpp day yomb loolu pour ñoom ñu koy moytu parce que tey lii nii di ñëw di jàppaloo ay doomu jaambur marsa dañoo tooñ jël numéro jàmbur di ci woote di ci saaga di ci wax wax ju ñaaw dafa dëkk bi dafa am yoon te damaa am ay mbokk damaa am njoboot moo tax ma jël seen numéro yi si saa ñëw génnee seen carte d'identité ñoom ñëpp képp ku ma ci woo nag saaga ma na lenn sa numéro boobu nga identité doomu koy wax ci télé da wax nañ ma lu leer naññ naññ naññ bu amul fu ñu dul dugg te duñ leen di jëli parce que loolu dafa ñaaw loolu bokkul ci làmb dégg nga ñaareel bi tamit fan yii yëpp ñu ngi ut jàmm seetaan ngeen euh, mooy bi ga booy yi nekkee parcelle ci stade bi mhm. ay baatu saaga di jaar suma tur man Pokola Ama Balde loolu loolu ñun defuñu ko ñun waa Pikine nañu vidéo yooyu dañ see jot mais mënumaa fayu mënumaa wax lu ñaaw li ma mun mooy julli ci fajar gi ma julli sama ñaari rakk pour yàlla atte ma ak ñoom loolu rek laa ci mun teg yàlla dinañu atte mu soobee yàlla li may wax nag mooy maa ngi woo waa Pikine pour yab leen man maa seen kilifa ñoom ñëpp maa yor seen baat maa ngi leen di woo ñu ñëw ci non violence loolu rek laay ñaan waaw bi ndax nga gisee Ama Baldé wàccaay bi yàggoon na métti woon na ñu ngi ci euh, benn fan ci des. non Ama pare na. Ama pare na Moodu tamit gis naa ko pare na. Hmm. wax dëgg yàlla ku nekk dem nga say mbokk ta di xaar yàlla ñëw. Hmm. mais ñun fi ñu waroon dugg yëpp dugg nañ fa. dugg nañ fa hmm. surtout man mii. billaahi wallaahi. combat bi li ma si daj. dajuma ko si combat Eumeu Sène Balla Gaye dajuma ko ci Eumeu Sène Bombardier ma ko tamit ci booy ñaa Balla Gaye li ma def ci combat bi bi ma dalee nekk ci làmb ba tey musuma koo def musuma koo def lépp pour am dam ànd ceeg suma frère Paate Balde muy suma xarit muy suma lépp waaw mooy loolu ah, noonu non non moom kay def ñoo fay ñun ñëpp ñun ak ñoom bu si tag ñun ah, ñëpp la la fay waaw may waaw wala kii bu toll kañot bi non kañot bi macha allah sëñ Assane mbake mu sëñ ateex sëñ Assane Mbacke barki démb verse na ma ànd ceeg ay kayit yu leer képp ku si dugal sa dërëm sa ñaar dërëm sa junni sa deux cent mille bind na ko ci kayit ak sa numéro téléphone wax dëgg yàlla ñu teg ko Ama Baldé kontaan ci trop maa ngi gërëm bu baax a baax a baax a baax tey ku ñu wax Amadou Ba bu Pikine Dominique moom moom immeuble boobu noonu R plus huit la fa tabax bi tabax doon si kaw ci rond point bi muy koo xamante ne tey lépp luñ doon jooy ci làmb ji defal nañu ko barki sëy Ama Balde moom jooyatul dara ndax Amadou Ba namatul dara surtout Modou Gueye ak autorité Pikine yi autorité Pikine yi ñoom ñëpp dam leen di gërëm di gërëm tamit waa Pastef yi barki yàlla maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax Thierno Ndomba maa ngi koy gërëm ak Tafa Ba ñoom it dañ cee jàpp bu baax a baax a baax a baax hmm. waa Pastef yi lépp lu ñu mën def nañ ko dam leen di gërëm di leen ñaanal suñu boroom defal leen jàmm di gërëm tamit ni nga xamante ne tey ñoo nekk ci nguur gi côté Macky Sall ñoom it ñoom it dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax a baax que lii xam nga affaire Pikine la dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax a baax Tafa Ba maa ngi koy gërëm Thierno Ndom Ba maa ngi koy gërëm Jamil Nuuru la Mbaye Diop tamit maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax sa xarit bi kenn du moom billaay wallaay kenn du moom Mbaye Diop non kooku milliardaire u Serigne tuu la maa ngi gërëm tamit kilifa yi ñuy jàppale yëpp bëggatu ñu ma tudd seen tur mais képp ku ma jàppale surtout waa Touba yi ah waa Medina Baye ñoom it gis nañu ñu ngi may jàppale bu baax waa Tiwaawan waa Njaasaan waa ah, Nguma Ngewul ñoom it dama leen di gërëm bu baax a baax a baax ak waa Canaba yi Thiès ñoom ñëpp waa Mbuur yi maa ngi gërëm bu baax sëñ Oustaz ak sëriñ Saliou ture maa ngi koy gërëm sëñ Zal maa ngi koy gërëm sëriñ Saliou maa ngi koy gërëm bu baax bu Mbuur maa ngi koy gërëm jàpp jàpp na ci bu baax a baax a baax ak Oustaz tamit Oustaz mu ngi Mbuur Espagne quartier Espagne moom it jàpp na ci bu baax kilifa boobu maa ngi koy gërëm waaw sëñ Alaaji Jenn jàpp na si bu baax a baax a baax a baax borom daaru borom daaru jàpp si ak tey pël furaado yu jóge Guinée ñoom it gis nañ leen tamit maa ñu ngi gàttanu tamit si kanam tuuti waa Gambie yi waaw ñoom it ñu ngi leen di gërëm tamit di ko wax supporteru Modou Lo yi ñoom it ñu dem ci jàmm ñibbi si jàmm waa Pikine yi tamit jóge gàmm yi maa ngi leen di ñaan ñu ñëw si jàmm ñibbi si jàmm uh-huh. Pape kontaan ci waa Thier yow di la di la di la di la di kontaan ci yow uh-huh. di kontaan ci sa site uh-huh. waaw di la ñaanal suñu borom defal la jàmm yow zéro faute barki yàlla ku la wax dara rek da tooñ sa liggéey rek ngay def dooma nettali doo duggulu sa yoon nekkul mun naa la ni tey ñii dëkk micro yi nii billaay wallaay bokk nga ñu si gën a yaru kon dama lay kon lu la metti wala lu ñu la wax rek dafa mel ni man lañ ko wax sa liggéey rek ngay def yenn saa dangay toog un mois doo ma jël du dëgg da ngay toog mois doo ma jël kon nañ ñu bàyyi gars yi ñuy wax nii li ñuy wax ci yow nekkul ci yow kenn musu dégg ci yenn benn détail loolu dam la koy témoyel du dëgg du man kese ngay jël yenn saa yi da ngay jël waa Géejawaay dem jël waa Parcelles dem jël ñeneen ak ñeneen sa liggéey ngay def nañ la bàyyi nga def sa liggéey képp ku la ci wax dara barki Seydina Amane bàyyi kook yàlla nga xam ne yow nitu yàlla nga jërëjëf kontaan naa <laughs> ko duma dinaa ko daan ci kàttanu yàlla. kii musul bu ñëwee dinaa ko duma dinaa ko daan ñu ko supérieur ci xeex laa bëri ñoom daan leen ci bëre daan leen ci xeex. lan mooy seen secret ba mbër bi ñu fi xeexkat rek ba tase ak moom xeexam feeñu. ci kii lay gën a leeree. parce que mbër mi ñi ko yor ay ay xeexkat a ko yore yoo xam ne dañoo xeex ba xeex bu dara newut da ay technicien xam fu ñu dugal loxo ak fu ñu koy génnee boo dugalee xam fu ñu koy génnee fu ñu placé ko dañ ko xam fu ñu ko xam muy laay béy mi sama sama sama côté droite moo ko yore entraînement ay kat ay ay wu ñu def def concours yor ko moo mu ñeme mën a bëre mën a xeex ci kattanu yàlla nañu ñaan yàlla ci kattanu yàlla ñun xeexuñu xulóowuñu saagantewuñu ñoom ñu ngi ñuy saaga nag bés bu ne di wax wax ju ñaaw lu ne d' accord ban nañ leen man mi man benn waay woo man te gàm bi su ma la tegoon audio yi tey da nga yéemu ci yàlla mi na bind man du ma saaga waa kër moom loolu du ma leen def dara na nañu ñëw rek beres si ci kattanu yàlla alkaati yaa ngi nii duñu fi jóg ba lamb ji jeex ci kattanu yàlla ku fi indi nga fi léegi loolu ma benn alkaati ma dugal nañ li ànd nag Modou Lo ñëw ci suñu kaay ga mën nañu trois cent et quelques millions personnes ànd nag moom trois cent mille loolu c'est trop. pour ñëw fan. la amoon TFM la amoon xaw ma euh, kii la xaw ma ah, ba fa Modou Lo di ñëw la ma ànd ci cosaan maar dañ taali commandant gi nii moom ma ko wax. commandant moo la ko wax. barke alxuraan karim. ok père loolu am na solo. Oh, oh, oh. mais Félix Mouroute aussi souvent day am. maas maas maas maas. day am atu maas maas. maas maas la tudd léegi. Ah. day maas. xam nga ko sax yow. léegi moom day am atu chaque jour ci mbër boo xamante ne dafa tolloo ak yow mbagg. Ah. day am atu ci mbër boo xamante ne day teg pied pied droit ndax liggéey ngeen ci loolu. def ay jàngat ci combat ak Eumeu Sène def ay jàngat. Lamine Lamine damaa bëgg yoo xam ne li ñu koy laaj moom du ci du ci du ci tontu. du tontu ci loolu ñooñu da nga koy posé question bu muy tontu. ñi ba xam suñu borom moo ko dagal. dafa am gàtt bi yow loolu suñu borom moo ko dagal. moo du ko mu tolloo nopp musu koo daan kuy teg droite musu koo daan. bàyyi ma ñëw da koo daan dégg ko ci li ma ne. ñeenti defet la am tapet la bu ne ko bëri si ma daan ko bu ñëwee jëkki saa kuy man nag jàng naa kuy arrière lañ kuy arrière xam nañ ko arrière arrière la jëm waaye mënu ci ñëw bi ngeen koy tegal te moom mu mën lool ci bëre pied droit. waaw pied droit yi mu bëre yëpp yaakaar naa ne. Hmm. kenn kenn daanu ko ci daf ko réussir. yi andi loolu yow handicap la pied droit handicap la amul gauche handicap la moom rek la amal na ko man deux pieds lay bëree. waa tegal barki waa tegal gauche billahi billahi walaay billahi walaay te la deux pieds dimbali ma tegal gauche deux pieds waaw ngir yàlla changé duma ko teg mënoo ko droite dama lay a daan droite mënoo ko ku mos a teg droite ku ko daan koo kan la ko kan la yéen moo daan non waaye ban droit nopp moo ko daan kenn kan ku mu nopp moo ko daan waxuma la dix ans mais naa roi des doon naa roi des arènes pare naa ma doon roi des arènes moom mës a wax ne moom moom mës a wax ne du ko doon du ko doon doonoo ko mënul dara ci poids lourd yi doonoo ko waaw loolu loolu la nga tuddee sa bopp fii roi des arènes cinq ans six ans benn combat tuddee sa bopp fii roi des arènes ba pare saraxu munoo ma saraxu noo déggee gaa ñu ne noo déggee gaa ñu ne Ama Baldé bu dépassé cinq minutes munoo ma saraxu ba ma may la saas nga may yeb père wuyu ma noo déggee ñu ne Ama Baldé bu dépassé cinq minutes du ci amati sens non ku wax loolu ñaata minutes la bëri maa ngi ñëw le frappeur Modou Lo le frappeur sept KO ma bëre moom ay yegg fa ma yegg ak moom te passage maa ngi koy neex suñu mbokk la waaye Modou Lo mi bu maa la ñaa maa la ñaa dóor ko mu ay Serigne Fallou Luc Nicolaï xalif général kullu promoteur loo def nii le combat royal tant attendu tey mooy dimanche juróomi fan ci weeru novembre atum 2023 drapeau Moustapha Gueye le deuxième tigre de Fass ñoom ñaar dellu suwaat nañ ci digg géew bi kaapay moo ñu ko may ci Sénégal ak li ko wër waaye kaapay kenn di yow muy transfert d'argent bi gën a wóor waaye bu dee bitim réew seen affiche point com ngeen di seetaan noonu Modou Lo ak Ama Baldé dellu suwaat wurewa dem na këng waxu dem na ndaj taali bàkk war na mbaam lu waay doon jaayi léegi mu lamb Ama Baldé à gauche Modou Lo à droite KP jërëjëf Serigne Fallou Luc Nicolaï jërëjëf télévision Futurs Médias jërëjëf waaye seen affiche point com jërëjëf ndeysaan ku soufflé ba dal na Ama ak Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi leew too ñu ngi leew too laa ilaha illallah ay waay xool leen stade bi Modou Lo ak ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñu ngi xeex xeex bi métti ñoom ñaar